Merci le bon Dieu et je prie pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je remercie mes parents et mon guide spirituel Serigne Babakarsi. D'abord, je remercie mes parents, les populations de Rufisque et mes sympathisants, mes amis, qui n'ont ménagé aucun effort à me soutenir, à me suivre durant tout le procès. Je saisis cette occasion pour les remercier vivement. Aujourd'hui, je suis fier, très fier de ma justice, parce que le verdict a tombé qui nous a donné raison. C'est parce que le pays, vraiment, on a notre justice indépendante j'en suis fier. Je vais profiter de cette occasion aussi pour dire encore et repréciser que j'ai jamais porté plainte. On m'a porté plainte et le verdict est tombé. Et c'est tout ce qui s'est passé se passe comme tout le monde le sait. Et aujourd'hui, je n'ai pas demandé quoi que ce soit. J'ai demandé un franc symbolique je ne demande pas de préjudice, malgré qu'il y a des préjudices, mais je demande un franc symbolique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais profiter pour vraiment remercier mes parents, mes sympathisants, mes amis, mes voisins et mon ethnie, vraiment, tous les Lébous et tous les Sénégalais. Donc vraiment, je vais, je vais profiter de euh, cette occasion pour remercier tout le monde surtout la presse, qui a relié vraiment cet événement, parce que c'est un événement. Il n'y a jamais eu un projet comme ça à Rufusque, mais tout se passe bien, et donc nous remercions le bon Dieu. Donc pour en revenir, euh, tey dañuy sant yàlla li qui ci sant yàlla gi mooy julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah sant suñuy sant sama sëriñ sëriñ Babacar si yal na yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeel di wax ni damay profité tey ci verdict bi nga xam ne tombe na yàlla dogal dëgg féete ak ñun te ñu xaaroon ko nag waaye ñu dellu sant ci yàlla waaye suñu justice réew parce que justice dafa am rôle bu important bu muy joué ci dëkk te jàpp naa ne bi man day euh, wax dëgg yàlla maa ngi ci gën a sant yàlla mais maa ngi gërëm aussi sama ay mbokk sama ay xarit sama ay dëkkandoo ñi nga xam ne depuis projet bi commencé ba léegi kenn toogatul ñëpp ngi jox ku nekk ñëw ci projet bi kon jàpp naa ne fii laa mën a profité pour remercier suma ay mbokk fii laa mën a profité pour remercier ñi nga xam ne Pala Mbengue dañ ko bëgg donc may leeral nag ni la ma waxoon moom laay waxaat man porté wu ma dañ ma porté plainte loolu leer na may leeralaat ni malgré que préjudice yi si am yépp man jéggale naa laajuma ñaar dërëm damay laaj rek un franc symbolique un franc symbolique mooy 15 bu kenn dul joxe. kon defe naa ne laajuma dara donc jàpp naa ni daal euh, dëgg ñëw na jox ñu suñu li ñu moom dëgg ñëw na suñu réew tranché na kon donc duñ man lu dul tënku ci loolu sant yàlla loolu daal lañ amoon ci loo xam ne moom wax. alors pourquoi vous demandez le français alors que vous avez subi des préjudices. waaw parce que. Euh, mbir mi ku xam Palla Mbangue xam ne ci wàllu social rek def nañ lu ëpp valeur lii nga xam ne mooy terrain bi ci dëkk bi ñu dëkk def ko wax ko sax du xel waaye xëy na bu du woon liñ ma laaj xëy na du sax ma waxe nii waaye jàpp nañu ñàkk nañ lu ëpp lii ci lu dul lii daj nañ lu nekk ci lu ëpp lii kon jàpp nañ ne bu ñu fi toogee di laaj ay réparation préjudice kon dañuy jàpp kon ak manqué lay doon ci ñun moo tax ñu jéggale te ay jullit lañ saa boo mënee jéggale moo gën kon jël nañ li gën li gën mooy jéggale kon ñun jéggal nañ ko jéggal nañ leen duñ leen topp dara duñ leen laaj dara loolu moo tax laajuñu dara. en français Donc, nous avons demandé un franc symbolique parce que nous avons jugé que ce n'est pas nécessaire de demander pour une réparation de préjudice. Parce que, quand même, avec nos deux modestes personnes, quand même, on a fait beaucoup de social qui vaut plus que cette valeur de cette terrain. Et donc, c'est vraiment regrettable qu'on nous entend même sur des situations comme ça. Vraiment, si j'ai quelque chose à regretter, parce que on m'a jamais entendu pour un problème foncier, on m'a jamais entendu pour des litiges fonciers, et aujourd'hui on m'a porté plainte de me mettre devant les juridictions pour un terrain que les gens ne comprennent pas. Chacun a son entendement, chacun peuvent analyser comme ils veulent, mais la vérité aujourd'hui est-il que Palambeng n'a jamais porté plainte et je dis encore que je demande rien du tout, je prends un franc symbolique pour réparer préjudice. Il y a beaucoup de préjudices, mais nous on trouve que on a choisi de pardonner, on a pardonné.

les impôts ont confirmé que man maa li tax ma moom it mooy ki ma jaay moom moom comme ki ma jaay moom moom kon man mi ñu jaay maa loolu yi bi ñu ñëwee ci tribunal bi le receveur des domaines bi mu ñëwee ci tribunal bi bi ñu ko laajee ñaari këyit yi ak ñaari Salimata Gueye bii ban moo authentique mu ne Salimata géey bi jaay Pala moo authentique kon loolu devant tribunal bi loolu Euh, ki nga xam ne mooy bari bi nekk le receveur des domaines wax na ko ci kanamu juge bi kon ñun mësuñoo am xel ñaar ci suñu moomeel ndax it li ma wax sànq rek kenn mësuma dégg amul kenn nag ku mës a dégg Palla Mbengue ci litige foncier kenn mësul dégg may weerante sax ci suuf kon bii bu may am lu ma naqar yi c'est parce que ñu may dégg ci may weerante sax waxu suuf boo gisee nag laajuma dara ci dëkk bi ñu dëkk ñàkk nañ fi lu ëpp lii ñàkk nañ fi lu ëpp valeur terrain bi kon bu ñu toogee ba tey ñu duñu tudd di tudd terrain bi mel ni alal or que tey bu ma porté woon plainte dana doon gàcce ci man parce que man ëpp naa di porter plainte ci affaire terrain ëpp naa loolu du sama warugar du sama cër kenn xaaruma foofu kon man waruma def loolu kon jàpp naa ni kon tey alhamdulilahi rabbil alamin bu dul woon liñ ma porté plainte xëy na mbir mi du coow li ci nekk wax ji ci bari yëpp ah xëy na yàllaa ko dogale noonu lañ koy mën a wax mais daal jàpp nañ ne jaru ko woon. léegi par waaw xam nga nag comme loolu moom problème politique la te man du ma politicien ah man jàpp naa ne daal tey dama fas yéene rek wax ci verdict bi nga xam ne parce que nit yàlla du la jox ndam ba pare nga dellu gannaaw di xajamal sa ndam ni nga koy xajamale nga wax leneen loo xam ne. Euh, waruloo ko wax wala ngay ubbi yeneen kii xam naa ne danañu jamono ngi ñëw ci kanam ñu xëy na mën a tontu ci loolu. Euh, président par parce que askan wi doon sursis. parce que man nekkuma ko. moi j'étais pas mais sax hmm. suma avocat mu nga fa woon. Hmm. bi mu génnee la ma woo wax ma verdict bi mais sama m'a pas sama hein ça et une peine de trois mois nag affaire loolu nag affaire yoon la xam nga man comme duma ma nitu yoon. du ma mën a wax ci wax loo xam ne yoon moo koy def man wàll bi ma mën a wax rek mooy wàll bi nga xam ne mun naa ci wax mais lu jëm ci wàll yoon je ne suis pas juriste vraiment mënuma ci prononcer.